ñu xuus ci faram-fàcce gi mu ngoog dal leen jàmm si bile jotaayu ah, xibaar ñu fës kee nekk door dañ leen ko waxee ci ndorteel li sa commune bu Kaymor Medina Sabax Ngayeen ñu ngi féete sa département bu Nioro foofee nag askan wa boolu jàmbat lu fees dell la ñu enu la koy lëmbe du lenn lu dul jafe-jafe yi nga xam ne ñu koy jànkonteel ci ñàkkum courant nee nañ lu toll ci ay téeméer ci ay village ñoo sa tënku waaye nag boo seetee ba sa biir juróom rek ñoo sa am courant ah, ñoo dooleeku sa bërëbu fajukaay bërëbu tàgga nga ah, bërëbu tàggatukaay nga xam ne ndaw yi mën nañ fa tàgga seen ak yaram amuñu ko wala sax jàngee it kenn waxatu ko euh, mun ñëw dooleeku sax yoon wu jagit amuñu ko mu di jàmbat lu fees dell jot nañu ko nag euh, yëkkati si janoo ga ñu woote woon ak taskatu xibaar yi euh, Bamba Cissé mayor seen ak sañ wax ñu teewlu ay kàddoom. bokk ci réew mi lépp loo xam ne nit ki da ko war a am rek ñu manqué ko amuñu yoon. ci ranran bu bon ngeen di jaar moom diggante ngayeen gi ñu koy defee ba Medina Sabax moo am diggante Medina Sabax ak Kaymoor moo am diggante Medina Sabax ak Jama mu nekk rang-rang yu bon boo yeggee ci dëkk yi tamit fekk fa jafe-jafe yoo xamante ne nii moo gën a métti ngayeen gii ñu nekk nga xam ne commune la ba mu jeex benn dëkk moo fi am courant bu ñuy wax ngayeen fii ci boppam courant bi dañ naan courant la rek bëri na gox yu bëri ci dëkk bi amuñu courant dëkk boo xam ne réyul muy ngayeen nga dem ci wàllu paj tamit njàqare boo xamante ne ni kenn mënu ko wax nit ñi ñooy fexe tabax seeni poste de santé te bu ñu paree sax du am ku fa nekkal fu mel ni Kaymor boo fa demee da ngay dem fekk du ñu boo xamante ni moo war a yóbbu nit ñi bi nga xam ne daal ñun moom la ñu dafa métti développement zéro courant amuñu ko ba léegi nii fii am na fi dëkk yoo xamante ne duñu naan dëkk yoo xam ne ci ndoxu teen la ñuy naan ba léegi nii am na ci organisme bi na sabab bi wàllu sécurité moom dégguñu ko fenn bu ñu fi doon agressé nit fii oto def fii ñëw dugg ci dëkk olimir waa dëkk bi yëpp def yi deux heures de temps jël la muy jël dóor nit ñi gaañ leen dem yoonam te duñu gis ku ñu wàllu lakk bu fi amoon bu ñu Gàmbi dimbalisuwul Gàmbi ñun suñu lakk fay yeneen lu soxal bi la jotaayu xibaar mu di ñeneen ñu amal ak jono taskatu xibaar yi collège bu délégué de quartier délégué yu chambre de commerce bu Dakar ñoom nag tey jii euh, lañu ñu amal ak jono taskatu xibaar yi nee ñu bëgguñu Ali Mboup daal di dikkaat si poste secretaire général bu chambre de commerce bu Dakar nee nañu nag jamono ji jëruñu dénk wàllum jënd meex njaay mi moom Aminata Assome Diatta mu ngay def kéem kàttanam pour andiwaat ko fa waaye bu yeboo mu xam ne loolee du fi antu ndax du ñu bàyyi mu jàll ñu ànd seen nanga ko bakka yo ko kuréelu délégué yu chambre de commerce bu Dakar li muy sàkku ci njiitu réew mi mooy mu wax jëwriñam bi mu denk wàllum njënd meek njaay mi di Aminata Assome Diatta ngir mu wàccook yoon wi nga xam ne réew mi ci la tënku jëm ci droit du travail bile collègue des délégués li muy lu mooy ay xeetu doxalin yoo xam ne li ko tax a jóg mooy fexe ba indiwaat ka fa doonoon secrétaire général di Ali Mboup. ministère du commerce ci kaw ñooy manœuvrer. daa mel ni lettre bi nga xamante ni moom la président bind. ñoom liiruñu ko. il a transmis une note de mise à la retraite ñoom ci seen bataaxal ñu ngi tontu président li nga xamante ni moom mooy limogeage ak licenciement. mais tey jii lu mën a xew chambre de commerce en terme d' instabilité en terme de risque le ministre du commerce xam ne elle est largement responsable monsieur Aly Mboup tàggu na fi. ne bàyyi naa leen kër gi dem na la ministre bindaat lettre indi ko fii. ci seen janook taskatu xibaar yi collègue des délégués bu chambre de commerce bu dakaar di ñaawlu itam doxalinu ñenn ci bureau bi te nga xam ne ay kuréelu syndicat ñoo leen di dooleel ngir wañ loxo njiital chambre de commerce bu Dakar. violé nañ la loi en demandant à un retraité mu ñëwaat léegi ñu ngi ci impliqué ay organisation patronale ci geneen wàll kuréelu délégué wu chambre de commerce bu Dakar di xamle ne jébbal nañu këyit Aly Mboup jaarale ko ci huissier ngir xamal ko ne ñaari fan lañ ko may lu ko may lépp lu leen yoon may daañu ko def ngir fexe ba du tegati tànkam ci bureau bi ñu ko jagleeloon. ni leen ko waxee ci ndorteelu bi la jotaay xibaar bu yeboo sunu mbokki njóobeen yi waajal ndax fëski nañu toog ñetti fan yu nga xam ne ni duñu lakk mburu fii ci réew mi ña ko xam le moo di euh, kuréel gëm bokkoon boulanger yu euh, Sénégal démb si ak janoor taskatu fukki fan ak juróom-ñaar jàpp ñaar fukki fan ak juróom-ñeent duñu lakk mburu Bada Gassama vice président bu kuréel gi ay kàddoom lañuy ñuy teewlu depuis le premier sant ba léegi ñi ngi yëngatu di dox ak a wax ak état bi bu ngeen xoolee sax ci mois de avril bi defal nañ ci arrêt de production mais lépp loo nga xay ni tënkan nañ ko ak état bi la ca waroon a génne état bi waroon koo siiwal état bi dafa dàq loolu moo tax boulangerie yi fi mu ci jamono bi ñu toll bind nañ ministre bi yëgal ko ko ni ko la le 27 ci mois de août bi ak le 28 ak le 29 dinañ taxaw parce que boulangerie yi mënatu ñoo dem fi ne ndax prix bi nga xam ni moom lañ gis boulanger yi gisan 1 virgule état bi gisan 0,95 nangu la appliquer prix yooyu ndax problème mu fi dëkk bi toll te boulangerie yi ñoom it charge boobu mënuñu attanuñu ko comme wax nañ dégguñu li fi sës nag mooy ku mënatul a dem dangay taxaw. ñu wutali sa Thiès benn dëkk ñaari gaar Amar mbay moo di euh, ndawuk boulanger boobee nga xam ne dañu ko faatoon ajjuma mujj nañu ko jébbal boromam ni ki rek démb ña ko gunge bokk na sa ay waajuram bokk xarit waaye it dawalkatu jakarta yi nga xam ne ñoo nekk sa Thiès njabootam nag la ñu xamle moo di tuumaalu ñu kenn waaye nag faw yoon def liggéeyam ñu xam ku faat seen doom joojee Simon Faye Mbaye Talxuma ginnaaw bi ñu jébbalee Amar Mbaye borom ba noppi nangu njaal ma ca këram la waajuram bu góor nangoo wax ak taskatu xibaar yi ma Fatim Mbaye junj lu jëm ci résultat autopsie bi. nun lañu téye woon ajuma ba léegi jot nañ ko am nañ ci ndam ndam loolee nag du lu ñuy wax parce que dafa am yoo xam ni dafa nekk ci yoon. ndax léegi bi ñu demee ba jébal ko procureur procureur fekk na mu autosaisiru bu ñu sukkandikoo ci xibaar yu bëri ne Amar mbay mi ngi ñàkkee bakkanam ginnaaw ab gaañu gaañu bu mu am ci bopp bi ak damm-damm ci baat bi waaye itam ne ñàkk na deret ju bëri waajuram bu góor bañ ne du ko dëggal waaye itam du ko weddi. confirmé ma ni accident la infirmé ma aussi ni accident la. du accident li nga xam ne bii nun suñ jëm bopp am nañ ko comme résultat par rapport à son décès dëppoowut ak la ñuy doon wax. Amar mbay ndax ci accident de la circulation la dee ndax ab policier moom moo ko faat ma faati Mbaye mii waajuram mu góor dàq na yenn yi ñu doon wax ngir seetal deru polis ak élément bii di Maxa Diop El Capo. ña doon wax ak yéen lañ wax dara amu ci. dëppoowul sax ak li nga xam ne bii résultat yi tey yi moom la génnee. ah ku mu neex na nga sang sa bopp yoon ak dëgg du rombi nopp. njabootu Amar Mbaye ne dina porter plainte contre X ci procureur ak ci gendarmerie ànd ko nag ak wóolu sunu justice waaye bàyyi ji jàpp ne yenn yu ni mel bëri ci biir réew mi te du mujjee fenn te ne nag loolu dafa war a jeex. ñu àddu jëmale bi leewoon ci limukul accident yi nga xam ne mu ngay gën di euh, màgg desandi sa Thiès sax naka Gora Khouma secrétaire général bu union des routiers du Sénégal moom démb sa peggub jërum ñu dénk wàllu dem beex dikk bi Omar Youm jot na fa tey kàddu di ñaax chauffeur si di leen xamal ni dawlum oto boo demee ba ciy def ak njombe jàppane kon sa bakken mu ngi ci xottu gerte ñu lu ay kàddoom bokkoon na ci li ñu doon wax ne ñun dañoo soxla tali bu am ñaari voie tey am nañ autoroute dañoo soxla woon ay tali yoo xam ne yi bëggul warul am ay doodaan ndax dañoo sonaloon tey autoroute amul doodaan njàpp yu bari yi amul fii moo tax ñu ne autoroute ñun ñu fiy jaar nañ respecté code de la route kon nag nañu dimbale rek ci ñun nañ respecté code de la route nañ yu baax yi gouvernement tamit li ñu mën a jàppale mi ngi def effort waaye na gën a yokk effort yi xam nga accident yi jamono booy ñi di ko respecté mais boo xawee noppalu rek mu mel ne dañuy baaxul juumte baaxul ci ci oto oto moom saa bu conducteur ba juumee rek jëyi da daal di moom ku ne mën naa juum mu jikko ba mu des sóor moom mu juumee rek bakkan lay laaj ba euh, jëy bu réy day war en permanence en permanence la war a dem ndax ku mel ni man saa boo la gisee di wax ak moom bakkeen di wax ak moom muy def mais saa boo waxutul ak moom rek mu nekk ci leneen ab kuréel gu yees daal dinaa judd convergence taxawu ndonday mag ñi lañu ko tuddee démb la ñu doon amal ak gannaaw taskatu xibaar yi ay nitu dina ñëw si dënku nee ñu nag la ñu fës kee ne xeex moo di ña nga xam ne ñoo taxaw di ŋaññ ak a yàq deru suñu ëttu këru diina yi waaye it suñu nit diine yi nga xam ne am na lu ñu fa samp ba noppi ba noppi bàyyi ko fii looloo sabab nag jàmm am ci réew mi loolee ci boppam la ñu dul seetaanati ku ko xajamal ñu ànd Cheikh Amadou Boy Mohamed Diaw ñoom nag li ñu bëggatul dégg mooy waxi ñaaw yi ñuy jël di ko teg si nitu diine yi ak lislaam convergence taxaw ndoonay magum lislaam yi ñàkk nee nañ dinañ jàmmarloo ak képp ku def lu ni mel attagu lislaam yi dootul jóge ci extrême droite raciste yi ñu ngi ci biir umma islamique bi léegi di wuyoo ay tulu jullit di dem ci gàmmu yi di dem ci màggal yi moo di ay audio ñuy saaga ndey saaga ndey Seydi Hadji Malick Sy saaga ndey Baye Laye saaga ndey Cheikh Cheikh Oumar ñu ne nag toogaay amatul parce que intellectuel yi def ay fantaisie di xeeb seen bopp di wane complexe yooyu sax ñu ko doon sooxaale mais lii kenn mënatu koo sooxaale. mu boot njaboot ci nekk ci këru diine yi ak yi association yi lëkkale njabootu diine yi ñoom ñi nag ñu ngi ñaax nguur gi jóg si lii. dañu bëgg état bi légiférer du Macky Sall la ngi ni am na article est-ce que le président Macky Sall beaucoup plus méritant que Cheikh Amadou Bamba que Maodo Baye Niass Baye Laye ñooñu tamit am nañu yelloo nañu benn article 80 na état bi seet naka la koy tuddee mais ñun bu suñu marche bi jeexee on ira rencontrer le président la République nee ko dañu bëgg loi convergence boobu nag nee nañ dinañ def toxu ñaxtu vendredi 23 août bii buñ jullee àjjuma ba pare ñuy jugee grande mosquée Dakar jëmale fële place de la nation tam ko duppee woon place obélisque ñu àddu jëmale bi la yoon ci opération ba nga xam ne nguurug Sénégal daf ko sumb ngir jële fi xaye di ci réew mi rawatina fi ci diwaanu Ndakaaru sa Tëngéej nag door nañu ko fa seen pàcc bu njëkk bi ñu ngi ko jagleel marché central bu Tëngéej dañu ko tëj ngir nag seetal ko loole am na ñu mu neex rawatina askan wa yeewoo sa këri suuf foofee nga xam ne marché bi fa la ne waaye it jaaykat ya nga xam ne ñoom la ñu tëj seeni i ñu ngi koy ñaawlu ndax nee nañu kon nag jamono ji ay jafe la ñuy dund mu di gëstu bu yaatu bu Cheikh Ahmed Tidiane Seck def ak Habib Dia jiite marché central bu Tëngéej yenn ci ay jaaykat mer lool. 4 heures météo xëy ñu ñuy dàqe amuñu fu ñuy jaay nekkee jigéen bor suñu doom sonn mais bëgg a dem dañoo daj nañ ko dañoo bëgg ku ñu jàppal te yàlla rek a tax sonn nañ trop ku ñu jàppal ndugg la jaay soo la ngi daw dama am laa bëgg a dee. boobaag léegi nag ñu ci 5 jours te gisuñu benn solution waxuñu nu dara te ñu yor suñu njaboot te fii rek lañ yaakaar. di quartier bi dalal marché a sax a set musuñu ko am amul yoo amul dara ngay xam ne ne lii su enchaîné suñ ko defaree dëkk bi day gën a set lii la rek ñun loolu rek lañ bëgg ñu mënee ñëwee am fu ñu dugg suñu maam yeex suñu yaay ñu bëggee dallu am fu ñu dallu yenn ci ay jaaykat ya daan toog ci xàllu mbedd ya biral njaxare ndax dara tàbbiwul ci seen ak gafagar juróomi fan a ngi nii dara gënul metti koo xamante ne nii bu xëyee lay lijjanti dépasse suba nga toog loo ko jëlee fa la mu yaakaaroon ak lépp mu dem toog di xool ay njabootam dara gënu koo metti depuis 80 boobu Kora Fall moo fi nekk maire ma di fi nekk lu ne fekk na ma fi waaye nag lii am nii tey jii man mosuma koo gis ci ab uh, daj ak raxas raxas bu ne fekk na ma fi nag waaye raxas benn fan la daan am ñaari fan mu jeex. responsable yi yelloo saytu marché central bu Tëngéej rafetlu cet geex cetal gi di xalaat sax taxawal ay sax ci lu ñeel ëllëgub marché bi géej. cet moom ku ko indi ci dëkk wala indi ko ci marché dañ koy gërëm di ko sant buñ la nee ni dañ lay baleel sa kër wala baleel la sa sa sa dëkk kon war nga ci am kontaan am na loo xam ne dafa metti métti ci ñoom mooy dañuy dund bés par bés loolu mooy méttit bi li nga xam ne moom la ñu bëgg a daal mooy marché bi seet ñëpp dellu ci seen place toog waxuñu dañ fi jëlee marché marché bi laaj na organisation il faut mu am règlement intérieur. boobaa léegi fukki at ak ñeent marché central bu Tëngéej kenn masu ko raxase dayo bu ñu toll angaaru jën ak fa ñuy jaaye yàpp faaw ñu yokk àpp tëjte bi. li tubaab di wax ni kenn mënul defar omelette tëjoo ay nen metti woon na euh, xamoon nañ ni marché bi meloon ak ni mu mel tey foog naa ni jaroon na def sacrifice léegi mu des ñi nekkoon si angaaru marché jën bi ak marché yàpp ak fi ñuy jaayee ay ginaar ak euh, yu demee noonu mais yooyu aussi parce que ni ngeen ko gisee sapeur pompier yi ñoo ngi nii donc di raxas te raxas boobu jàpp nañ ni fii ak euh, ay bis bi di jeex mën naa bañ a egg mais loolu aussi ñu ànd si ak waa marché bi ñu waxtaan ak seen i nit ba ñuy jaay jën ak yàpp nangu fan leen teg. ñaari pelle di engin yu mag yuy sarcé ñeenti camion ñooy dem ak dikk di tonni agents ñoo cay yëngu. ñu ngi ñaan les autorités administratives muy le préfet muy le commissaire ak les autorités étatiques que nañu accompagner la brigade municipale ñu def le travail parce que depuis trois ans ils ont été là ils ont été braves ils ont affronté et puis le marché était propre. que li nga wax ne dañu jox vingt na ñëw pour que la brigade mënoo liggéey à Rufisque dañu ñaan que la police ak le préfet qu'ils nous accompagnent aussi. marché central kanam bu yees taxawaay bu xarañe ànd ak fulla rek moo mën a muccal bu wëyal jajëf Cheikh Ahmed Tidiane Seck ñu wàddu jëmale ci nees mën a def ba góor ak jigéen yem ci doxum jàmm waaye it euh, ci wàllum yoon loolee nag moo tax a jóg ministère bi ñu dénk wàllum économie numérique ak na communication ba sabab mu woote sa tey ji awlal ngir xool yoon wa ñu war a a jaar ba loole daal di antu ajaratu ay chening Germaine Dior lañ ci àndal ngir gën a xam li ñoo wooyee genre ki fa teewal ministre de l'économie numérique et des télécommunications di leeral. li ñuy gën a fësal bu ñu waxee genre dañ naan maanaam jigéen ñi lañ ko jagleel. Euh, genre bu ñu koy wax tamit bàyyi wu ñu góor ñi waaye li ci ëpp actuellement nii ndax dañoo constaté que dafa amoon benn déséquilibre muy ci administration mu ci secteur privé ba tax na état Sénégal dafa jóg ne léegi ministère bu nekk. président République ne nañ fa def benn cellule boo xam bi ne loolu mooy veiller à que loolu ñu dugal ko ci biir programmation yi. ngir ñu gën leen a bàyyi xel ci wàllu politique ak yoon am na ay jéego yu ñu war a def. gis nañu léegi dara mënul dem ci réew mi tey jii nii te dugaluñ ci jigéen gis nañu ne ci économie maanaam bu ñu wax économie jigéen ñi ñoo ci dugal seen loxo bu baax a baax donc bu fexe bu ñu fexee tey ji ba jigéen ñi jël li nga xamante bi ne mooy économie numérique def ko seen yëf. dugal seen loxo fexe ba nga xam ne léegi dinañ utiliser jumtukaay yu xarala yi ñoom bu ñu fexee ba jumtukaay yu xarala yooyu li nga xam ne économie numérique da koy offrir nga xam ne opportunité la léegi ñu jël ko def ko seen yëf yaakaar na ne affaire dina gën a jëm kanam loolu mooy défi principal Sénégal ubbi nañu ab lël bi yokk seenu xam-xam ci planification ak budgétisation jëm ci lu ñoo wooyee genre ñu gën cee mën a gis seen bopp desandi ba tey ci wàllum jigéen ñi ak waa partenaire West Africa ñoom seen dajam session ñetteel bi yoon sax mu daam dajam nga xam ne woote nañu ko bi la ñu dajale si jigéen ñi nga xam ne ñoo nekk fii ci réew mi waaye yit euh, sa euh, Guinée ak Gambie Guinée Bissau ak Gambie dañuy waxtaanee nag moo di lu saxal jàmm sa diwaanu Casamance nee ñu seen bëgg-bëgg nag du lenn lu dul jàmm sax foofee sa sa diwaanu Casamance ngir nag ku si nekk mën saa gis sa bopp ñu ànd si si ay leeral Tidiane Diallo Babacar Mar ñu fexe taxawal benn kuréel ngir gunge jigéen yi ci prévention ak résolution conflit yi loolu moo waral partenaire global amal nañu tey seen troisième session jigéen yi nekk ci sous région bi teewoon nañu ci ndaje bi. jigéen ñi tey gis nañ ne que le fait ñu nekk yaay donc di tax na jigéen toujours mu ngi defar mu ngi rafetal donc saa yu ñu ko dugalee ci euh, juboole euh, dafay euh, aboutir. partenaire global am na ñu fas yéene liggéey ak jigéen yi ngir jàmm dellusi ci Casamance. donc léegi ñu ne dañu def ay session déjà ñu boole jigéen yooyu yëpp ñu jël femme leader organisation société civile ñu ñëw toog ñu wax donc nan la ñuy def pour retour définitif de la euh, paix. en Casamance. ku teewaloon jigéen yi nekk ci bois sacré rafetlu na taxawaayu ONG yi ngir jàmm dellu si ci Casamance. ñu ngi sant yàlla bu baax bu nit ñi jógee yenn région yi ñëw jàppale ci conflit ba léegi dëkk bi sedd na bu di nga dox ba heure bu la nee bu njëkk ba timis du la fekk ci biti ñaar nit duñu taxaw ñu taxaw gendarmerie jàppale wala rebelle yi jàppale ñu ne ñoom ngeen ñoom ngeen nekk di waxal. ci ndaje bi participants yi dañuy teg benn kuréel ngir gunge travaux yi ci fan yii di ñëw dañuy organiser marche ngir ñaan jàmm dellu ci Casamance. ñu àddu jëmale ci euh, yarum jën gi fii ci réewum euh, Sénégal mu di aquaculture fanweeri junni ci ay tonnes jàppale ne loole moom la ñu bëgg mu daal di am ci feex 2023 waa ANA nee na ñu nag daañu def seen kéem kattan ba loolu daal di antu démb sax moo sababoo ñu amaloon sa ak ndajam waxtaan ci seen biir euh, Mame Astou jan ji Diop mu doon dëkk bi nga xamante ni ràññee nañ ko ci mbayum jën loolee nag mel ni luy nasax jafe-jafe yi nag bari loolu li ci mel ni cherté aliment bi bi nga xamante ni moom la producteurs yi di jëfandikoo ngir dundal yooyu lay jën. charge bi loolu moo si gën a diis dina jël soixante à soixante dix pour cent ba pour cent. Ah, fii mu nekk ñun dañuy importer. sept cent franc lañ koy jëndee. 700 francs boo si boolee sa salaire yeex say frais yeex yooyu bu ko jaayee 1500 di nga peut-être di nga si am 100 wala 200 francs bu ñu buggee am dara nag foog ñu sóoraale ñu wàññi prix aliment bi. si loolu kuréel gii di agence nationale aquaculture fas yéene cee dugal loxoom bu baax ngir assurer sécurité alimentaire yooyu les espèces. problème mu développement pisciculture bi Sénégal dafa mel ni ñoo xam du ñuy xaar. jën ñu ñuy yar mu daal di bëri ñu soog dugg ci aliment bi. alors que pour jën yu bëri nag il faut que aliment am gis ngeen cercle vicieux bi il faut que mu am ku ci def dara situation bi amoon il y a 3 ans 4 ans amatul parce que fi mu toll nii bi ñu génnee ci tabaski bi gis ngeen kilo jën bi fi mu toll 2000 3000 et cetera maintenant am na période yoo xam ne dafay yokk am période yoo xam ne dafay wàññeeku comme toutes les productions mais ñu ngi koy encadrer. défi bi ñu lancé nag mooy daal di atteindre 30 000 tonnes fii ak 2023 ci ay jën bu sukkandikoo ci agence nationale aquaculture. leneen lu soxal bi la jotaayu xibaar mu di caravane des vacances citoyennes xam ngeen ne dem nañu sa jurubeel ba ñu fa jógee nag wutali nañu Mbàkke waaye fu ñu fa dem nag boolu jàmbar lu fees dell la ndaw yi daal di dajale yebbil leen ko mu mel ni kon nag la ñuy xaarandi si ñoom moo di ñu àndi si ak saafara Abdoulaye Diagne Ousmane Diouf jëwriñ ji dénk ndaw ñi nekkoon na ci département wu Mbàkke yi ci tukkub nemmeeku bi mu doon amal ci diwaan bi ndaw yi becc ci kanamama seenuk jaaxle ne kim wutu lim diggee woon na dara defu ko fii boobu moom wax nañ ko si kuréel yi wax nañ ko rek fii lañ toog daaw ak ministre comme yow mu jël ay engagement ba France. lu ni mel tax ñu ne ñoom tiit nañ lool nax buñ demee ba nga xam ne mag ñi leen jiite dootuñu wax dëgg jaaxle jot na. mais buñ demee ba mag ñi nga xam ne nii ñu jiite lu ñuy wax dañ koy xoolaat duñ ko def buñ ko waxee duñ ko def ça pose problème. dañoo mel ay paale amuñu dara. chaque fois li ñuy xañ suñu divertissement heure bu ngeen bëggee ngeen ñëw ngeen ñu jàppale ñu je regrette il faut que ngeen jàppale ñu mën leen a jàppale ñaata at ñuy jooyu stade ça fait 15 ans ñuy jeexu stade di ko jooy mënuñ ko am jëwriñ diñ dénk ndaw ñi di dalal xel yi objectif yëpp fii ci euh, Mbacké ak un Sénégal mooy euh, doter jeunesse bi infrastructure socio éducative yoo xam ne dinañ ci mën a jël seen bopp dinañ ci mën seen domaine yi nga xamante moom nañ bëgg waaye dinañ ci mën a loolu moo tax bay wayu mbuus dina ñëw def suñu kéemtalaay kàttan pour infrastructure yooyu euh, jóg noonu sax mu xamle fa ne dinañ amala ndaje mu yaatu ci diir bu gàtt ngir mëna indi tontu ci jafe-jafe ndaw ñi jëm ci wàllu tàggatu akum xëy ñu àddu jëmale ci wàllu tàggat yaram laata ñu nar kepp bi la jotaay yu xibaar mu di coupe du monde bu basket fanweeri fan ci weeru fanweeri fan ak benn ci weeru dañu koy tàmbali foofee sa Chine waaye nag fii ci réew mi suñu gaynde tàmbali na am ak coow seen biir ndax niki rek démb sa Diamniadio hôtel ba ñu leen euh, dalaloon tàngoon na lool buñ sukkandikoo ci yéenekaay bii di Seneweb ndax nee na nañu euh, ñoom ci boppam yenn ci joueurs nee nañu duñu rek génn hôtel ba wala dem Chine te fay ñu leen seen i prime mu di prime bu participation ak prime de qualification boo ko boolee mu nekk juróom-ñaari million suñuy koppar loolu sax ñu ko doon laaj nag maître Ndiaye maître Ndiaye ba mu jaaxle dafa woo góor gi si Dieng waaye ñoom joueurs nee nañu mukk nag sa dal du lekk seen koppar maanaam prime ya ndàmpaay la ci boppam dañu leen ko jox mu toll ci juróom-ñaari euh, millions ci suñuy euh, koppar euh, pàcc bu mujj bi soxal bi la jotaay xibaar yi yéen kaay xëy dëxëñ lay doon ak El Hadj Ahmed Aïdara Thiès tey benn dëkk ñaari gaar tàng na lool la ko tu jëyee ne kay ne dee bi nga xam ne nag maanaam kon dawal ko tu Jakarta ba day Amar Mbaye waaw daal dina koy faatu ah résultat ba day daal dinay génn ma ne la hôpital Aristide Le Dantec gi la ci Ndakaaru Njaay jël jóob koon lañ ko defee waaye xale ba day boobu baa yàqu akbar laa ilaha illallah am tamit ay damm-damm yoo xam ne kon doy na waar waaye ah, a de waaye ma fàtte mbay mi nga xam ne nag mooy bàyyu amar mbay day ci yéen kaayu jamal jàngi waaw nee na autopsie daal ah rafetlu nañu ko waaye nag comme que ca enquête la ñu nekk day ca procureur dugal na ca loxoom ah am na loo xam ne kon mënuñoo wax lépp déedéet laaste en tout cas day waaw dafa setal police bi nga xam ne nag moom lañ doon tuumaal El Capo mar di tali ah, ma ne la wax li moom El Capo moomee waaw na ko leer nag ñi ñooy dawal Jakarta day boobee ba léegi ma nga toog ca biir commissariat ba ca Parcelles Assainies ca Thiès laa lay wax ni léegi moom waaja day ca benn groupe WhatsApp boo xam ne ay policier ñoo ko séq waaw ca la xam le ne déetuma ragaluma parce que fa nga xam ne foofee la ñu rayee xale ba day waaw teguma fa sama tànk ne ku ma foon laa la wax yaa jum wala maa jum El Capo ci Vox Populi ne doo ah la ñu rayee kon Amar Mbaye mi lé parce que nekkuma fa woon baayu Amar Mbaye day daal xam le ne danañu porter plainte Fatim Mbaye ah nee na am na ci yenn yoo xam ne daal war nañ koo soppi war nañ koo changé parce que dañu ne na xam nga ci bu ah, bees la ñu ay doomi gor ah, daf ñuy fàttali rek jalgati loi bi nga xam ne kon moom la Macky Sall nekkee ci biir mi te xam nga lan moo ci gën a doy waar la wax Mamadou eh yàgg na ci jalgati maa la wax léegi te ah, ci boppam kon moo signé ab décret jël suñu pétrole ba nga xam ne kon moom moo nekk ca ndar géej daal di koy jox pétrole yi te Macky Sall xamoon na xel ne ma ngay jalgati loi Macky Sall dafa yàgg ci jalgati loi Mamadou Lamine Diallo ne waaye kon Macky Sall mi lan la ñuy dencal ci 2022 bi looloo jaralaaj Mamadou Lamine Diallo ci tribune yéen kaay yemu ca ndaxte nee na façon nag bi nga xam kon moom la Macky Sall kon di politique ni la la ñu war a weer daal di koy jébaane te façon bi nekkul dara lu dul jël ay opposant daal di koy tëj ci kaso rek teg leen loxo Khalifa Sall Karim Wade ngi ni la doy nañ exemple jëfandikoo wàllum parrainage bi nga xam ne kon wàllum guerre la jëfandikoo wàllum justice fi la ngir foqati nguur confisquer ñaar li ñu bokk ak fi mu nekk nii dañoo fas yéene xeex ngir suñu wàllu pétrole ak gaz wala boog ressource naturelle Sénégal yi ñu daal koy aar mais loolay dëgg taxawal benn campagne boo xam ne de dañu koy tuddee quatre cent mille citoyens aar suñu pétrole loolay dëgg de fas yéene def nag ay conférence publique ay forum ay ndaje ay concert ba ci ay marche fépp ci Birahim Seck forum civil day waaw sandi na bomb bu rëy mardi terrorisme seetal xaalis bu salte war nañ caa wax de lañ war a wax kay termine yéene kaay ne boulangerie day crise amati na fa ñetti fanu yàlla yoo xam ne mburu du am ci maar day taali mburu waaw le 27 ak le 28 ak le 29 waaw grève la ñu a def kon ñoom boulanger yi cey PDS critique yéene kaay ne sëñ Baati day imposé seen nag ab mini gouvernement génération du concret Sara Sall day démissionné na na Abdoulaye Wade moom nga Wade day jëlee na fa Cheikh Seck ak Aziz Diop ba pare nag daal dalal cadre yi nga xam ne ñoo ànd ak Karim Wade le tey mooy yéene kaay ne waa crise am te PDS waaw Omar